Euh, yorinu réew ci kopp tey dugg ak génn ak euh, nañ koy jëfandikoo euh, yaa ngi jamono ji nag biti réew dëkk bu naan saw Tomé et Principe waaye sa gannaaw coow li dafa wulee ñaay dafa gën a wuli ñaay coowal rapport Cour des comptes ci ni ñu yore woon li nga xam ni moom mooy xaalis bi senegal di mille milliards yi nguur gi ne moom la doon xeexe corona virus ba fii nag euh, gisaguñ ay jéego jëm ca loola ci wàllu euh, xool ba xam tribunal dina ca def am déet. waaw jërëjëf euh, Babacar ci opportunité bi ñu may pour wax ak sénégalais yi mais également wax ak nguuru Sénégal muy pouvoir exécutif bi di pouvoir judiciaire bi ndaxte li nga xam ne moom mooy ay di jàmbat. mooy rapport bi nga xam ne Cour des comptes euh, def jëm ci na nañu mobiliser xaalis bi jëm ci wàllu euh, xeex mbas mi ak naka nañ dépenser xaalis bi nga xam ne moom mooy xeex mbas mi euh, Cour des comptes def ci liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la ndax décrire na wane na exactement naka la liggéeyee ci première page yi nga xam ne moom moo nekk ci rapport am ci wàllu méthodologie ci wàllu euh, thème de référence yi nga xam ne moom lañ ko joxoon mais également ci ressources humaines de qualité bi nga xam ne également choisir na ko pour euh, tëgg rapport bi di di si profité lu wax ne euh, jàpp nañ ne Cour des comptes war na toujours di génne ay rapport particulier ndax rapport yi muy génne souvent rapport yi rapport yi ñuy wax rapport général la ay tënk la yoo xam ne da koy jukki rek ci yenn rapport particulier mais rapport bii mu génnee nii dafa nekk benn rapport boo xam ne rapport bu descriptif la ci naka la ñuy yoree alalu naka la ñuy xeexee mbas mi donc loolu euh, bokk na ci loo xam ne dañuy rafetlu seen liggéey di leen jaajëfal ci liggéey bi parce que yàgg nañu lire rapport Cour des comptes mais quand même bi bokk na ci rapport yi gën a nekk rapport de qualité loolu dafa dafa dafa jaadu woon ñun forum civil ñu indi comme témoignage ci wàllu Cour ci Cour des comptes euh, beneen bi mooy yàgg nañ ko wax faj yii yëpp Euh, ay nit dañoo dee ci mbas mi ay liberté ñu confiner leen ci mbas mi nit ñi ñu toogloo leen seen kër ñenn ñi ñàkk seen liggéey ñenn ñi ñu dóor leen ci ñeneen ñi as tuut suñu am muy cent franc muy cinq muy muy mille franc ñi entreprise également jël seen xaalis dajale ko muy un milliard wala wala cent million na nañ ko jëbal nguur gi ngir mu xeex mbas mi boo lekk alal ji nga xam ne moom moo jóge bitim réew parce que damay wax ne xeex mbas mi nekkul rek sénégalais ñu jël seen xaalis daal koy dugal ci xeex mbas mi mais dafa am ay doomu réew doomu ci àdduna yoo xam ne ñii ay ay japonais lañ ay français lañ ñii ay américain lañ ñii ay banque lañ jël seen xaalis wala bokk jël xaalis lii ñu lii ñu may ñu ko lii ñu lebal ñu ko jël ko dugal ko également pour xeex xeex mbas mi damay wax nañ ne euh, en tout cas deux mille vingt presque lu ëpp cent sept fa partenaire et financier jël nañ ko dugal ko pour jàppale Sénégal ci xeex mbas mi ndagati ci jamono jooju am na ay sénégalais yoo xam ne ñoom euh, ñu ngi def li ñuy wax ay surfacturation ci li ko Cour des comptes génnee ngi def également ay dépenses yoo xam ne bokkul jëmul jëmul également ci xeex mbas bi euh, bi loolu amee ñu ne nag tey euh, ñu nu ñu ne président de la République ndax moom mooy clé de voûte des institutions parce que à chaque fois bu ñu defee sorti daal di interpeller la justice boo seetloo fan yële ci ginnaaw ay mois yële ci ginnaaw bi nga xam ne société civile bi artu euh, euh, euh, justice bi di wax ak ñoom ci wàllu indépendance ñoom dañoo def compresse daal di di mel na kuy dànkaaf askan na leen bàyyi leen pression bi ngeen teg ci justice bi ndax justice bi ngi def liggéeyam justice bi justice bi dafa indépendance waaw bu fekkente loolu am na mu am rapport bu mel nii ñu ne ay milliards yi milliards ay ay def dépense nañ ko ci loo xam ne bokkuwul ak mbas mi ñu ne kat ay milliards et milliards ay nit jël nañ ko ci ay marché yoo xam ne ci wàll boo def boo xoolee boo xool dafa am lu wax conflit d' intérêt ma ay ñu jël et milliards yoo xam ne jël nañ ay dépense yoo xam ne euh, euh, bokkul ak dara ak également ak li ñuy wax lutte contre la Covid euh, Covid 19. waaw justice boobu noonu tey est ce que war na croiser les bras est ce que justice boobu war na xaar tey bi di ko interpeller est ce que justice bi war na xaar tey opposition bi di ko interpeller est-ce que justice boobu tey war na xaar tey citoyen lambda bi di ko interpeller jàpp naa ne tey jii nii justice bi mu war a seetal deram ci ne il est indépendant ndaxte boo liiree rapport Cour des comptes bi am na ci ñoom ñoom Cour des comptes nee nañ nga xam ne moom mooy yenn faute de gestion yi wala boog loo xam ne dañ koy méngaleeg infraction pénale ci buñ ko déférewul devant les autorités compétentes def nañ ko référé ci devant les autorités compétentes hmm. maanaam bu dul déféré def nañ ko référé jébbal ko ñi nga xam ne mooy autorités compétentes yi autorité compétente yooyu nag ministre de la justice mënu cee génn autorité compétente yooyu président de la république mënu cee génn ndax jot ndax tey jii fi mu nekk nii Babacar bët bu rusul toj mënu jël alal joo xam ne dañ koo jëlee bitim réew alal joo xam ne ni ñi dañ leen a dóor ci seen liberté alal joo xam ne nit ñi dañoo jël seen cent franc muy ñi jaay jën muy jaay ñi jaay caaf alal joo xam ne nit ñi dafa seen masque mu am ay sénégalais yoo xam ne ci si bopp enfin ay sénégalais nañ ci booba di def ay surfacturation di di signé loo xam ne ci ci ci jaaduwul dina tey justice bi du taxaw dafa taxaw def euh, euh, def liggéey bi liggéey bi war day dem. Mm-hmm. ñun ñu ngi xaar encore une fois naam parlementaire ñu ngi taxaw pour jéem a déglu également ñi nga xam ne mooy gouvernement waaye dañuy rappeler rappeler waat waat ne fàttali waat ne procédure bi nga xam ne moom la cour des comptes utilisé dafa nekk procédure bi contradictoire maanaam ni jokkaar bi teg tuma seen kaw. jox nañ leen kàddu ñu wax indi seen réponse donc jaratu ñu génn ci presse bi di def réponse nañ na dem répondre devant le juge président de la République moom ci boppam. justement Birahim président de la République moom ci boppam. il n'est pas question que rapport bi ñu teg ko. Euh, euh, est-ce que euh, Birahim ñu ngi joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xamante ñoo di ay DAGE ay ay ministre sur facturation ci lu jëm ci wàllu marché yi mais est-ce que lépp tukkeewul ci décret dérogatoire bu njiitu réew mi jëloon ndorteelu mbas bi. xam nga boo xoolee xeexu forum civil dafa yàgg wax toujours de nañ def attention ci dérogation yi nañ def attention ci dérogation yi ba nit ñi jàpp nañ ne forum civil. buy wax day wax parce que dafa am envie uniquement wax euh, mbas mi buñ baw buñ jëlee décret bi mel noonu di nga ne ah mën nañ ko comprendre ndaxte kat décret bi day permettre nit ñi gaaw waaye nit ñi gaaw warul a tax nga def surfacturation nit ñi gaaw warul mën tax lu war jël dërëm nga jëndee ko cent franc nga jëndee ko mille franc ñi gaaw warul tax nga nga nga nga nga nga sànni fële lu ñuy wax la nomenclature euh, des dépenses publiques parce que dafa am arrêté xam ne mooy arrêté dans nomenclature des dépenses des dépenses donc gaaw gaaw boobu noonu warul mën a tax ngay def surfacturation warul mën a tax ngay jalgati naam ci mbas lañ nekkoon li nga wax dafa am solo parce que gis nga am na benn dérogation bu mujj léegi léegi temps yàggul dara en août deux mille deux mille deux mille euh, douze août deux mille vingt deux président de la république jëlaat ko forum civil génn na attention dérogation bi président jël Euh, dina laal lu toll presque mille milliards de francs CFA maanaam boo jëlee budget wu ministère du pétrole nga jël budget ministère des mines nga jël nga jël budget également yeneen institutions yi jëm ci wàllu euh, pétrole gaz wala wala boog énergie électrique ëpp na ci lu toll ci mille milliards de francais CFA donc bukki bi nga xam ne moom moo wokk Covid 19 bi moom moo nar a xuri secteur extractif bi moom moo nar a xuri pétrole bi moom moo nar a xuri gaz bi moom moo nar a xuri également euh, énergie bi te Forum Civil FMI sax bi nga xam ne souvent dañ naan dafay dafay faral nguur artu na gouvernement bi ci arrêté bi nga xam ne président la République jël na ko le 12 août 2022 ak arrêté bi nga xam ne jëloon nañ ko xam nga 2020 dañoo jël un mm. arrêté du 7 7 euh, janvier 2020 ñu ne leen dérogation mars également ñu jëlaat benn dérogation daal di ne Covid 19 gis nga njombe bi nii en 2022 ñu jël benn dérogation daal di ne également secteur extractif lépp loo xam ne pétrole la gaz la dañoo dañoo déconstruire actuellement le code des marchés ba nga xam ne lu waaye neex def lu waay neex def li wax dëgg la mm. euh, euh, euh, dé dérogation bi nii mm. allo. oui oui ñu ngi lay dégg Birahim. léegi Birahim. dañu bëggoon. dañu bëggoon wax rek ne xëy na rapport bi moo moo enquête rek ci Cour des comptes moo enquête ci ci coronavirus bi ni ñu ko yoree waaye jëfin wi. est-ce que du chaque jour lay am ci réew mi muy corona wala ñàkk corona di fexe sàkki pexe ndax système bi mayewul nit ñi di jël alal réew mi ci maali forot euh, mën na sax bañ a feeñ xëy na. système bi kenn dong la muy le président de la République bu neexoon tey président de la République tey lépp loo xam ne impunité la la du am Sénégal damay fàttali ne président de la République moom la benn ministre boo xam ne cour des comptes daf ko woowoon pour enquête ko moom mu jël ko def ko ministre te neewul def ministre boobu noonu na dem wuyu de cour naam wax nga dëgg euh, détourne euh, euh, malversation yi caxat caxate alal réew mi nekkul rek en temps de crise nekkul rek en temps de crise damay wane ne damay wax ne également il y a il y a il y a quelques na ay rapport yoo xam ne génn na ci IGE ba léegi amul benn suite am na rapport yoo xam ne cour des comptes génne woon na ko amul benn suite am na rapport yoo xam ne tey génne woon na ko amul benn suite donc njombe yi dafa nekk en temps de crise et en temps de paix waaye loolu nag bu fekkente ne njombe am na en temps de crise en temps de paix amul benn sanction ñu ne dossier jël nañ ko teg ci coude bi kooku benn responsabilité la am muy le président de la république donc moo tax dañ koy interpeller encore une fois il n'est plus question que ñuy continuer encore une fois institution di génne ay rapport di génne ay rapport di génne encore des rapports muy continuer di noppi di continuer également ñuy fay ay nit ñoo xam ne ci wàllu juridiction yi liggéeyuñu liggéey bi tax ñuy wax donc moom lañu interpeller directement parce que alal ji nii fi mu nekk nii tey boo foo mën dem ci àdduna tey partenaire muy français yi muy américain ñu ngi leen xoolu ñu xoolee bët boo xam ne mu leen gouvernement boo xam ne gouvernement bu am dayo la ndaxte lebal lebal leen suñu xaalis jox na leen suñu xaalis may nañ leen xaalis ñu ñu ñu ko donc nekkul rek problème mu Sénégal ba dafa nekk problème au niveau international moo tax le président doit impérativement agir le ministre de la justice doit impérativement agir la justice le procureur doit impérativement agir parce que quand même li ëpp lépp lépp lépp tuuru donc détru euh, euh, euh, malversation yi du en temps de en temps de crise mais également dafa nekk en temps de de de paix su mun mun naa mun naa donc il mm-hmm. faut que réforme yi nga xam ne moom moo war a judd ci biir Sénégal mu jëm ca euh, parquet national financier te am benn euh, euh, du ñu joxatee sax loi boo xam ne tey wala projet de texte boo xam ne tey jii nii mi ngi tiroir ministère de la justice ko foofu bañ ko génnee muy le projet le pôle judiciaire financier réformer également de l'OFNAC réformer également le système de déclaration de patrimoine engager la responsabilité des des des des des muy les ministres ñoom ñëpp devant devant la cour des comptes je pense que loolu fi mu nekk la ñuy xaar président de la République mais l'heure n'est pas à la tergiversation que mu nekk les hommes politiques de tout bords l'heure n'est pas à la politique politicienne parce que lii dafa nekk lu grave ay nit dañ cee dee ay kilifa dañ cee dee ñu ne te opportunité dañoo manqué woon également ay ay ay ay ay ay ay ay ay équipement alors que xaalis bi fi ay ay ay ay vaccin périmètres yi ay écart am ci dépenses yi maanaam lépp loo xam ne waxoon nañ ko seen seen presse boobu mooy le plan le le plan ah. de résilience économique et sociale ah, lépp dafa daanu lépp dafa naasaay Birahim Euh, sànq wax nga ab ah. ministre bi nga xamante ne xëy na demul wuyu euh, ci euh, cour de comptes ay jamono jàppe leen ay petit magistrat tey ci suba ci l'observateur gis nañ Mansour Faye di attaqué sax ñi nga xamante ne ñoo di waa cour des comptes yéen ñi dañoo mbubboo politique nëbutu ginnaaw institution yi am leneen li nga xamante ne moo leen tax a jóg yan problème la sunu kilifa yi am ak organe de contrôle yi non ñoom ñoo am problème ak sunu xaalis parce que lu bees maanaam lu attaqué question bi dafa bees population bi ñoo war a yeewu ne ñi nga xam ne encore dañoo def liggéey bi dama dama leen koy wax nañ dem ci rapport Cour des comptes bi seen tour mi ngi fa nañ def enquête ci ñooñu xam ñooñu ndax am nañ compétence wala amuñu compétence donc problème bi nekkul euh, Cour des comptes problème bi nekkul corps de contrôle bi mais problème mooy ki nga xam ne dénk nañ ko suñu xaalis amul possibilité biñ ko joxee cadre pour mu tontu parce que ministère yooyu yëpp. jox nañu leen kàddu pour tontu mais tontu wu ñu ci nañu war a tontoo woon mais jarul tey ñu dem ci presse bi dinaan diw dafa def politique diw def maa contre diw lool taxul ñuy wax bu fekkee bëgg nañ seen seen der ni nga xam na tey action nañ ko machine judiciaire bi ni nga xam ne tey jii nii actionné nañ ko machine judiciaire bi nañ ko actionné ne judiciaire bi ci rapport cour des comptes bi procureur de la république procureur de la république amatul benn la boo xam ne tey jii nii war na tax du ubbi ay information judiciaire ci dossiers yi nga la Cour des comptes wane jëm ci ministère développement communautaire jëm ci ministère de la santé ba jëm ci ministère des forces armées encore une fois. Mhm. léegi euh, euh, ci wàllu xeex. Euh, naam rapport. Birahima Birahima Seck. allo waaw. ci benn ci ci ci benn minute fi ñu toll nii yéen société civile muy forum civil ak yeneen Euh, ñu nekk ci biir société civile bi euh, ban tànk ngeen bëgg a taxawee ci lii leer. Euh, déjà mooy mooy li ñuy def nii li ñuy def nii wax ak askan wi interpeller le gouvernement interpeller également informer les les partenaires et financiers parce que depuis maanaam may ñu gën ci presse bi di wax même temps ñu ngi informer les partenaires techniques et financiers ñu ngi informer tous les partenaires yi nga xam ne tey su nekk nii dañoo jël seen xaalis dugal parce que dañu leen interpellé beneen bi maam mooy euh, au niveau du forum civil mettre nañ en place benn équipe boo xam ne moom mooy étudier le rapport incha allah rabi xam nga ne nekkuma nekkuma nekkuma Sénégal bis moo ñëwee dañ wax seen conclusion am na ñeneen ñu ñu contacté également pour des actions. Mm-hmm. Ah, euh, internet bi moo moo ni demee waaye ñu ngi lay gërëm bu baax Birahim Seck yaa nga ca euh, Sao Tomé Principe fa lañ doon jokkoo ak yoon nga nekkoon sunu gan tey yow yaa jiite forum civil ci Sénégal jërëjëf Georges jërëjëf euh, Cheikh Tidiane mbokk yi ñu yendu ak jàmm. jërëjëf Babacar Fall Georges Déthié Diop ak waa RFM dañuy jublu ci xibaar yi 8h info ak Chérif Dia.